c'est un procès politique. Euh, balaa mooy ñëw foofu. Mhm. li invité débat bi ci jàkkaarloo. Mhm. jàkkaar naa ni jàkkaarloo. Mhm. lépp lu askan wi di waxtaane lañ fiy waxtaane waaw ah, te démb defe naa waxtaan yi loolu ci këroo de te bu doon ganaar bu nu sàcc bu sàcc ganaar kañu géej sàcc bala c'est un sujet qui intéresse les Sénégalais ndax ñu ngi koy waxtaanee ci grand place yi looloo andi débat bi ñi ko séq la Mame Mbaye Niang ministre c'est un politique Ousmane Sonko maire c'est un politique quelle que soit nature bu mënoon am seen biir kenn mënu ci dindi politique mais dama bëgg ñu man dama am une deformation parce que je suis communicant journaliste je suis sur le factuel ñoom dafa wax léegi ni daa bëgg réew mi di dal réew mi pour ñu bëggee mu dal foog ñu ñemee di waxante dëgg des fii Ousmane Sonko génn ni am na rapport daa njëkkoon wax sax IGE ba mu yàgg mu ne lapsus la IGF mambay ne ko bu mu ci mën ci doon yokk ci sax Cour des comptes rapport bu ma am bu may épinglé andi ko mu ni moom am na ko moom moo bëggoon procès malheureusement nag suma gars yi ñëw dañoo féetewoo ñoo baax ñoo bëgg réew mi ñoo ñoo ñoo mais mbir mi lu ci andi problème yor nga rapport waa ji porte na la plainte li mu wax mambay bu la ko waxoon nga porté plainte su ko waxoon bu mu porté plainte honneur am lañu atteindre chef d'accusation dañ ko ci saaga xas ko ci mu ni na andi rapport bi bu ko épinglé moom mbambay dana ut ay mënoo takk boppam jébbal bu rapport bi ñëwee xaarul sax rapport bu épinglé mambay bu ñëwee su suñu def jugement il démissionne il se constitue prisonnier dama bëgg laaj ndax réew mi nit sañ na xool nit ba mu neex jiiñ ko xas ko saago ñu ne la kaaw yu nga ne du ma ñëw c'est sous le problème qu'on pose et à l'Assemblée nationale kenn ci ay député wu Pastef yëkkati na rapport ne mu ngi nii Ousmane Sonko nee na am nañ rapport bi moom kay mooy daw moo ko sax moo ci wax ci conférence euh, ci meeting Mame Mbaye Niang wax ci ñoom ñaar ñëpp ku nekk wax muy Mame Mbaye Niang muy Ousmane Sonko ñun li ñu bëgg mooy problème bu amee entre deux sénégalais ci yoon lañ koy def nañ ko yóbbu yoon ñu wax ci su fekkee ni moom am na rapport bi dinañu rendre un très grand service ndax nag DER vingt neuf milliards yu sénégalais yi ku ko lekk te ñu gis ko dañ laa waral tëj ba damm ci caabi waaye Sénégal fii itam kum toog bam neex la nga woo télé yi woo rajo yi jël jàmb xas ko jiiñ ko li daa sàcc vingt neuf milliards. bu la yóbbee ci yoon bu yoon dalee sa kaw na nit ñi gore nangu ni yoon taxaw mën ci demande pas autre chose que la justice soit faite ndax nag loolu mooy état de droit ndax nag loolu mooy démocratie maintenant ndax ay bu seqe bu dee ay politique ko seq ay na yéwén mu ne surtout ñàkk ñu wax ci mbiru politique mais Ousmane a def conférence de presse ni am na ko vidéo yaa ngi fii ci internet bi ñëpp di ko dégg mu dem ci meeting am ne du diffamation internet laa ko liire man ni jàpp naa ni ci lim gën a xam bu doon mbiru mbay gerte guy sax ak gudul sax bu ci juumee suñu ne waaw mais jaar-jaaru jàngam ci wàll jëm ci ministre finance ci contrôle te ñu ne ci la gën a xaar ñaar moomu naan u moo ko tey bëgg ji nit su amulee rapport wala xamul te ñaari bu ci doon musiba lay doon ndax nag ñu nangu ko ñu bañ ko bokk na ci opposition yi gën a populaire dans pays ba tax na li ñuy baal maire bii jaay caaf yow duñ la ko baal en tant que journaliste duñ ko baal buuba tey jii su ma defoon benn clip boo xam ne ne ay xuusmaa ñàppal niñ ma ko baal mais duñ ko baal kii passe passion parcours ku nekk sa daraja moo lay jox day mooy jox dayoo sa wax ak sa yitte su fekkee nag réew mi mën nga toll fu la neex xool gor bu la neex jiiñ ko tam ko te du la dara fekk yaa un danger nous ne demandons rien d'autre que su dee yor na rapport na ñëw teg su bu incriminé Mame ñu jàpp Mame Mbaye dóor ci kaso su ko yorul moom yoon dal ci kaw xuloowuñu xeexuñu xastewuñu weerantewuñu lii mooy coow li mais Moussa juste xëy na fi ñuy convoquer la politique dedans mooy euh,